ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp ci King Taalif tey nag ñu ñëw indi leen histoire bu yéeme bu doy waar lool di la ñaan nga seetaan ko ba mu jeex ndax yéeme gi foo ko takk weesu na ko di leen wax yéen ñi nga xam ne yéen ay béggee King Taalif di ñaan saa yu ngeen seetaanee ngeen sem vidéo bi tey partage tey commentaire kon nag ñu ñëw daal di leen andil histoire bi ndax doy na waar lool man nag am naa jëkkër maa ngi nekk ak moom Sénégal moom. tukkiwul génnul fii la nekk ci senegaal man tamit maa ngi fi waaye nag bokkuñu dëkk boo xamante ne fii la ñu nekk moom dafa nekk ci beneen région ci Sénégal di fi liggéeye waaye léeg-léeg mu toog lu mat ay weer daldi di fi ñëw daal di demaat dina fi xaw a gëj léeg-léeg waaye moom sama borom kër boobu noonu moom daanaka taxawuma ci lu bari lu war ci man lu bari defu ko daanaka saa yoo xamante ne am na lu war ci man mag koy laaj dinaa sonn lool te du ko def wala lim ma ciy wax du ma neex ba tax na dana am loo xamante ne bëgg naa ko lool duma ko ko ñemee laaj damay mujj fexe nu ma mën a fexe def ba am ko rek dinaa ko def ndax daanaka su ma ko laajee lam ma cee wax ak la ma cay fekk du doon lu ma gënal te nag daanaka mënuma woon bi wax ak samay problème ñu bari waaye nag amoon naa benn xarit boo xamante ne sama morom la mi ngi dëkk ci dëkk bi nga xamante ne fii laa dëkkoon avant may sëy fii nga xam ne fii laa nekk dëkk yi nag taxu ko sorente lool lool ba tax na ci moom laa daan waxtaanal lu bari loo xamante ne ci sama wàllu borom kër saa yoo xamante ne daan naa ko wax nag lim may wax mooy lii moo tax man bëgguma sëyi heure bii ndax góor ñi dañ lay takk ba noppi daanaka sànni la fële lu leen neex ñu nekk ci. lim ma daan wax mooy man moom maa ngi ci farantu bi ba ci kanam ndax moo gën dox ci man fopp su ma sëyee dan may gaare du ma am sama liberte bopp yooyu rek la ma daan wax nag di ko dugal ci sama bopp. waaye nag moom dama daan wax faram wi lim koy defal lu baree bari nga xam ne lépp loo xamante ne soxla na ko rek su ko laajee dag koy defal ci saasi iPhone bi nga xamante ne moom la yor sax moom moo ko jëndal saa yuñ daan wax daal lim may mooy jànq daal soo bëggee dégg dëgg man maa ngi ci sama olola toogal foofu nag ñu lay sonal di la rey ak ay coonoog wax ju bari ba nga xam ne man mujj naa su ma amee problème su ma ko waxee sama borom kër daanaka soo xamee ne jox na ma wala joxuma loo xam ne moom laa soxla woon damay mujj woo kooku nga xamante ne mooy sama xarit boobu léeg-léeg moom moo may jox ci li nga xamante ne faram wi moom la ko daan jox. benn bis nag wax na ma ne ma sama far wi dafay bëgg a ñëw daal di may seet si waaye moom nag yónnee na ma fi mu ne xaalis bu bari ngir boo xamante ne ñëw na ma man ko cee. toppatoo ndax buy ñëw day ànd ak xaritam mu daal ne ma waa doo ñëw ma may la sax xaritam boobu noonu ndax moom mu lay mën a may ci xaalis bi ndax ñoom ñu am classe lañ sama far wi moom ñu am classe rek lay àndal te bari na xaalis lool. ma ne ko bul dugal yooyu ci sama bopp bi te nga ma bàyyi nii rek waaye moom wax na daanaka ba convaincre ma ngir bëgg saa xamante ne faram woowu ñëw na rek bu boobaa ki nga xamante ne xaritam bi muy àndal mu daal ne ma koy mën a may man tamit ma koy mën a mbaraan di lekk ci moom xaalis mu daal di ne ma bi sàngam dina ñëw su fekkee dinga nga mën a daal di ñëw bi ma ko waxee ma daal di ne ko waaw man de sama borom kër moo ma ci jaaxal mu ne ma bul ko wax dara bul ko tàggu bul ko def dara yow xëyal rek boo xëyee nga daal di ñëw wala comme ci ngoon gi lay ñëw daanaka bul xëy man ngaa daal di gontu ñëw su fekkente ne ñëw nañ ba ma may la ko ba mu jeex bu boobaa nga mën a delluwaat ñibbi ñoom sax mam nañ nu muy demee suñ indee seen oto ñu mën laa déposé yóbbu la mu daal di laaj faram wi daat koy laaj ndax ki nga xamante ne moom lay àndal di ñëw ndax am na dara mu ne ko déedéet mu ne ko dama koo bëggoon a may sama benn xarit mu ne ko sama benn xarit mu daal di ne ko waaw mu ne ma mbaadu ngaaka moom mbaa nandite la rek ma daal di ne ko waaw ma daal di ne ko envoyé ma ay photoom boog ma xool ko bala maa ñëw ndax sama xarit bi gën cee sawar ma ne ko kii daal duma la yónnee ay photoom lépp def na ko liñ bëgg ci jigéen lépp def na ko rafet na taaru na moom macha allah jongama na kii dama ko bëgg a defal surprise ba mu ñëw mu ne ma moom waxtaan ci ak moom rek su fekkee bëgg na su ñëwee ma daal di ko koy may ma daal di ne ko waaw amul problème ma wax ko ko mu daal di d'accord daal sawar lool ci yoon wi ba nga xamante ne war nañoo ñëw ñu daal ànd ñoom ñaar daal di ñëw bi ñu ñëwee ci kër gi nag ñoom ñaar ñu daal dugg daal di toog bi ñu toogee jàmm ba mu yàgg mu daldi koy laaj ki nga xamante ne anamu ki nga xam ne moom nga may daal may mu daal ne ko mi ngi ci yoon bi di ñëw xam naa soriwul dara dara dafa génnoon rek waaye léegi mu agsi incha allah. ñu daal di bàyyi kooku ñu ma bëggoon a may ci saal bi mu toog ñoom ñu nekk ca néeg ba di def lu leen neex di def lu leen saf bi loolu amee nag tuuti ma daal di agsi bi ma agsee ma daal di sone ci buntu kër gi bi ma sonee ku jigéen ki moo daal di ñëw daal di may ubbil mu ne ma yegg si nga ma daal di ne ko waaw mu daal di may dalal ci saal bi daan may présenté ki nga xamante ne moom la ma bëggoon a may fekk waxtaan nañ ba man d'accord naa daanaka moom tamit d'accord na li ci des mooy ñu gisante daal di gën a confirmer wax jooju. mu daal di may indi bi ma toogee mu daal di ne ma kii laa la doon wax daan ma koy présenté daan ne naa leen bàyyi foofu yéen ñaar ngeen toog daal di waxtaan seen waxtaan man maa ngi dellu ci biir néeg bi. bi loolu amee nag ñu toog toog ba mu yàgg ñun ñaar daanaka waxtaan nañ ba d'accord waaye nag ñi ngi toog daldi jege man maa ngi tëdd ci kawam di ko raay ngir bëgg nag boo xamante ne dina dem rek mu gën a kontaan ci man daldi may mën a may xaalis waaye biñ nekkee foofu ñu nekk di def suñuy affaire ci saal bi man ak moom ñu daldi toog ba mu yàgg ki nga xam ne nag mooy sama xaarit boobu daal di ànd ak waayam bi ñu génnee ca néeg ba daal di ñëw ci saal bi daan ne yéen a ngi toog bi mu ko waxee man tamit rek ma daal di jug bi ma jugee toog ma xool ko ndakate kii ma xamante ne moom la ndaw si àndal sama borom kër la ma daal di siggi xool ko mu siggi xool ma rek daal di wàcc téléphone bi nga xamante ne moom la yoroon mu daanu ci suuf man tamit maa ngi tiit ba xaw fan laa koy waxe ji waaye man tamit damaa xalaat ne comme moom dafa nekkoon ci li ko neex di ma nëbbu ndake fii la daan ñëw di financé di taxawal di def lu ma neex man tamit maa ngi woon ci lu ma neex xay na bu boobaa du am problème ma daal di toog xool ko mu xool ma waaye waxul dara kii daal di wax daan ne kii yow lan la kii daan ne lan la maraat di wax sama xarit bi daan ne ko xanaa xamoo ne kii mooy sama jëkkër bi ma ko waxee sama xarit daan ne ma jëkkër kii ne ma amul dara musta am dara ne man sax dama bëgg a daal di takk rek daat koy dóor aw mbéj bi mu ko dóoree aw mbéj mu daal ne ko ii mu dolliwaat ñun ñi nekkoon foofu ñëpp kenn ku ci nekk xamoo lan ngay wax sa morom bi mu ko waxee rek man tamit ma daal di jël sama saak daal ne man daal sama yoon nekk fi ku ci ne dangaa nekkoon ci lu la neex ñu jàpp la daal di génn daal di dem sama yoon nag ma daal di ne ko yow jànq nag am nga sens ndax li la may sens mooy comme xamoo woon ne kii sama jëkkër la rek moo la may sens daal di génn daal di dem. bi ma demee nag toog nan lu yàgg a yàgg ay fani fan woowu ma man tamit woowu ma ko defu ma ko dara dama toog ba benn bis ma daal di koy woo waaye bi ma ko woo ay yoon jël ginnaaw bi mu daal di jël daan may laaj loxe xewoon ma ne ko xam nga li xew mbirum keroog ma laa bëgg ñu waxtaan ci ndax maa ngi koy soogatal fan yii yëpp dama laa talutoon mu ne ma lan la ma ne ko ah def naa waaye yow tamit def nga waaye nag man li ma def bay boo nga xam ne li ma ko teg mooy nii nga def ñàkk maa defal dara ak ñàkk maa teg fenn ak ñàkk maa jox sama cër ndakate li may ñàkk jox yëpp ma yaakaar ne dëkk bi dafa neexul ci yow yaa ngi dem ci yeneen jigéen di leen ko financé di leen ko jox di leen defal loola neex ndax sama xarit bii moom dama daan wax say mbir xaw ma woon na yow la ndeke lu mu bëgg ci xaalis yaa ngi ko jox saa yoo xamante ne mos naa soxla dara sax wala dara ci moom laa koy ñaan mu may ma ko te nee na yow yaa ka daan jox. téléphone bi mu yor yaa koy jënd te man maa ngi ni yoruma téléphone bu baax man nag lii ma dugg dem ba xamatuma fu may jëm amatuma dara te mënuma tas di dem moo ma tax a dugg ci lii boo ma dimbali woon lii de man duma ci dugg benn yoon. ñu daal di waxtaan foofu ba nga xamante ne mujj nañ daal di gindikoonte ndax xam na ne comme jàpp naa ko wax ji du ci sori waaye man tamit moom jàpp na ma waaye xam li ma ko wax xam na ne moo waral ma dugg ci lii bi ñu juboo nag tey jii ku ci nekk jox nga sa morom cër jox naa ko cër bu mat sëkk mu jox ma cër bu mat sëkk daanaka su ma amatee soxla bu ma ko laajee du ma wax wax ju bari damay daal di jox ndax xam ne am na ko moom moo ma ko daawul jox